batay tey ci seen scandale jour Assane Diouf nee da fay di conseiller Ousmane Sonko parce que euh, il est son grand frère da koy conseiller parce que nit ki do ànd ak moom da nga koy jey man kuy conseiller Sonko bu yefo nga jël ay bouteille ndox sa sewit te xamne sa bout gi dina wow nak deg deg manam mu deg la modul yomb comme ne bopam rek a ko doy c'est grave donc ñu deglu ci vidéo bi ñëwaat. lan la fi Ousmane Sonko defagum wax mako lan la fi defagum mu wax menacer sama rak la aw maag mom ben problème mais dafa laaj pour mu deglu dafa laaj mu deglu deglu ay kilifam deglu ñiko don gungé gunge amna ñu mu àndaloon. ñoo xamante ni kenn mer ci Sénégal bu leen dégloo ah dina gouverner mais bu leen dégluwul xolal na laaj Macky Sall mi fi tàmbali woon traque des biens mal acquis ñun soxlawuñu loolu fii Sénégal de xolal dañoo am pétrole am gaz am diamant am or am lépp lu yàlla di defal nit ci kaw suuf ak réew yi raw ci àdduna bi yaa ngi dégg Nous ñu liggéey moo ko war mais pas jàppaate parce que loolu lañ doon xeex ak Macky Sall man loolu moo doon sama combat man dama doon xeex ak Macky Sall pour mu bàyyi sénégalais yi muy néewal doole parce que bu la yàlla joxee lépp nga mën a liggéey am na loo xamante ni mën nga ci joxe ay exemple ay institution yu dëgër bi ñu ñëwee mooy numéro un waruñu fi woon arrêté benn chantier amul benn chantier bu nekk Sénégal bu ñu fi waroon arrêté parce que man buma woré né yaangi sama biir kër satch sama milliards nek sama biir kër di tabax dama lay bayyi nga continuer di tabax bo tabaxé ba paré bo tabaxé ba paré ba corps de contrôle yeeg institution yi ne ma ki mo satch nangam mu nek lu deug mané ne sénégalais yi dossier yaangi ni diw mo fi def li alalu askan bi la ne ko foqet téréwul sénégalais yi ñu ngay liggéey jaay ko ciment yi di jaay ciment jaay ko fer di jaay fer camion yi yóbbu di yóbbu li mu arrêté Sénégal waru ko woon arrêté te xeex bi dafa amoon principe mooy principe bu ay institution yu dëgër da ngay dugg ak jëflanteeg négocier jëflanteeg assemblée nationale dugg fa voté ay loi tëggaat suñu institution yi jubbanti police jubbanti gendarmerie jubbanti corps de contrôle yépp ba ñu jub xoc yaa ngi dégg li ma la après non non defuñu ko defuñu ko dàggas ci dàggasante la ñu toll mais. Ah, du déglu déglu ah Assane da juum nag du déglu xelu keneen doyu ko xalaatu keneen doyu ko xam-xam keneen doyu ko leneen keneen doyu ko mooy jëmm ji nga wax te moom il est vide quand je dis c'est parce qu'il fait des choses yo xamanteni je sais en âme et en conscience quelqu'un qui est intelligent ko xamanteni am nga touti loy bagn am na tuuti loo xamante au moins manam ragalé nga ko sax waxuma la yalla nga rousé ko nit yi rus yàlla doo ko def je vois des gens yo xamanteni ne ñu ngi défendre nan moma señ mun taxaa c'était privé ñu tëju ci neeg li ñuy wax nan la xamé lool la wax Sonko kenn du ko so sosal nee leen Sonko ku ko sosal doo bu fekkee da nga añee sa kër doo fa réeree Sonko kenn du ko sosal ñi wax bañu jaarale ko ci ay journaux ba jaarale ko ci ay journal télé bañu jaarale ko ci ay plateau waxuma Sonko ko wax de waaye na ko weddi wala na leen poursuite ne leen convoqué ne leen porté plainte gaaw na ci procureur na autosaisiru gis naa benn booy bu naan bu bu jomaay wàccee euh, Cheikh Omar Diagne mu teg ci saaga bu ñaw jëmale ko ci président jomaay man jomm naa leen ko woon jomm naa ci jaaraat xalaatuma ko sax sama àdduna benn booy mu ne bu jomaay wàccee Cheikh Omar Diagne mu jaar fu bën mu jaar fu bon ci suñu président ani procureur procureur jot nga ci video bi Ousmane Diagne jot nga ci video bi yónni ko Sonko ndax seen booy la wala du seen booy mu vérifier vidéo bi ñàkkul ni jot nga ko ndax démb bokk na ci vidéo yu gën a partagé ci TikTok bi kon jot ngeen ci boo leen ci jotul aussi dem leen ngeen gestu ci dem leen ngeen xool ci saaga yu ñaaw moom dafa défier président de la république ne ko boo defee lii ñu lii ak lii jaar ci waajuram direct saaga c'est grave kon na si afan Assane Diouf Sonko ku koy yedd ah xanaa nga waslu ak kese waslu ak waaye gëwma mu jëfe ko ndax bu doon jëfe conseil dépassé na niveau bi te bàyyi na yenn yi mais Sonko changé wul Sonko mi nekkoon opposant il est pire dara dara dara changé wul. You're the nigga, you're